mu bokk ci euh, coalition euh, na euh, moom la ñu invité tey fa yéene waxtaanee lu jëm ci wàllum élection locale yi ak yeneen ponk yoo xam ne aju na si ndey Sow Leila maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay kilifa gi di la sant di la gërëm ci invitation bi di leen ñaanal jàmm ak salaam di nuyu mo mboolem auditeur bu leen di déglu. ndey Sow Leila yow yaa jiite mouvement liggéey Sénégal. Euh, nga bokk jamono ji ci coalition euh, jot na bala ñuy ñëw ci sa bokk ci coalition jot na euh, mouvement liggéey Sénégal kañ ngeen créé mouvement boobu. mouvement liggéeyal Sénégal mi ngi taxaw depuis 2013 2012 2013 lañ taxawal mouvement boobu mi ngi tuddoon sax mouvement de lawbe et associés du Sénégal et de la diaspora mais macha allah xam nga comme que sama mbokk lawbe dañoo am bayre tur bi dafa nëbboon trop associé bi associé bi muy joolaa bi séeréer bi ñëpp ci biir moo tax ñu changé ko def ko mouvement liggéeyal Sénégal. Euh, lan nga jublu si taxawal ab mouvement. Euh, du sax lu ma ci jublu li ma ci poussé pour ma def ko yàgg suivre euh, suñu politique yi fii depuis ñu nekk xale ba tey xam naa mu nekk loo xam ne dafa nekk ci ñun ñuy gis injustice bi fii am. Euh, ni ñu war a jàppalee askan bi jàppale wuñ ko askan bi je pense que ñun loolu moo ñu poussé pour tey ñu dugg ci politique bay taxawal mouvement. Euh, bi nga taxawalee mouvement bi 2012 euh, 2013 est-ce que xalaatoon nga dem ci mouvance présidentielle ndax da nga jàpp ne da nga bëgg danga nga créer mouvement pour taxaw si jafe-jafey askan wi est-ce que mënoon a créer mouvement tamit dem ànd ji ak mouvance présidentielle wax leen loo xam ne ay solution la ngir ñu saafara jafe-jafe askan bi. xam naa dafa jotagu rek bés bu jotee yomb mais bi ñuy taxawal c'était pas suñu intention je me rappelle pas mësa ànd ak mouvement présidentiel j'ai toujours été euh, avec l'opposition macha allah ba bi ñuy dem législative en 2017 c'était en coalition euh, avec l'opposition euh, dafa jotagul daal dafa jotagul parce que gisaguñu li ñuy liggéey lu war a tax ñun ñu ànd ak ñoom effectivement war nañu mën a ànd ak ñoom liggéeyal suñu réew comme ku ci nekk Sénégal moo la intéressé mais bés bu ñu gisee ñoom ñu def seeni jéego ñu góor góorlu ci li ñu nekkee incha allahu rabbi dinañu ànd liggéeyal réew mi. Euh, mouvement euh, liggéey Sénégal ndax mouvement télécentre la comme ni ñu koy waxee wala mouvement boo xamante ni altoppe la. wala ndey Sow Layla dafa tëdd ba yeewu rek taxawal ab mouvement am est-ce que mouvement. liggéey Sénégal mouvement la boo xam ne am na ci Sénégal gi yëpp ay bànqaasam tey wala doole mouvement bi tey lan nga ñu si mën a expliquer. Euh, mouvement liggéeyal Sénégal comme li gars di wax fii moom ba ba démb rek benn waay mooy tooñ naan ma vous êtes des petits euh, mouvements et des petits parti mais je pense que ñi ngi sant yàlla ndax am na yu juddu bërki démb euh, ñi ngi doxal ñun juddu nañ bu yàggit ñi ngi doxal du du du mouvement boo xam ne daf nekk rek nekk meuble. parce que même bu du dara ñi ngi def yeneen yoo xam ne ci biir du du du du nekk politique parce que on dans le social ñi ngi dimbale ñi ñu war a dimbale ñi ngi jàppale ñi ñu war a jàppale comme li ma la wax rek mouvement bi dafa taxaw uniquement pour liggéeyal Sénégal jàppale Sénégal comme touram nu muy wuyoo on n'est pas là pour topp benn nit rek nga xam ne ni loolu du suñu initiative. mais est-ce que tey euh, ce mouvement bi tey euh, am na ci euh, ci biir Sénégal ci yeneen. Euh, ci yeneen localité yi waxuñu sax 14 régions yi mais on est international on France on est Italie on est un peu partout quand même. liggéey Sénégal voilà. yow yaay euh, bi. man maay présidente bi depuis 2012 ñi ngi day am ay changement mais bon gisaguñu tamit lu war a tax xëy na ñoom ñu changé parce que man li ma gëm mooy lépp lu may def rek damay concerté wu ak sama staff concerté wu ak base bi concerté wu ak ñi ma war a waxtaanal. d'accord mais laataa ñëw fii rek yàpp nañ ma balaa may yegg si. d'accord mais euh, Ndeye Sow Leila euh, dafa am loo xamante ne tamit vraiment dañ koo gis ci Sénégal mooy créer sa parti politique ngar daajoo ko wala nga créer sa benn mouvement te pourtant bi nga koy créer xalaat bi mën na jóge si yow mais ay borom xel. say moroom say nawle nga ko seqal waxtaan ak ñoom mais dañuy gis ne yéen ku ci jiite benn mouvement wala benn parti politique dangay ngay toog ay at yu baree baree bari mel ni que yow yaa ko moom di buum di buum di buum changement du am. effectivement loolu je te l'accorde ba ba récemment rek maa ngi koy waxtaanee ak kenn parce que des fois dara day am gars yi teg ko ci taabal bi mais. au lieu sax ñu xalaat ne nañ dem waxtaan suñu base bi yëpp mais fait ils veulent prendre la décision ci toogaay bi automatiquement tu ça craint te dis que Euh, voilà ñoom ñoo nekk ci bopp bi quoi ñooy buur ñooy bumi effectivement li nga wax am na euh, ni da ngay gis ko am benn mouvement taxawalu ko sax pour politique wala benn parti daf ko taxawal pour ay business boppam parce que des fa peut-être am naa parti politique wala am naa mouvement am na porte yoo xam ne mën na la ko ubbil comme on dit au Sénégal il y a 300 partis politiques xaw ma ñaata mouvement et pourtant ñoo ñëpp doo leen gis ci langue langue politique bi mais mais yow euh, Ndeye Sow euh, Leila tey seen mouvement bi liggéey Sénégal euh, est-ce que tamit vraiment xalaat ngeen bis ñëw ngeen am candidat présidentiel wala sax au moins ngeen am député assemblée nationale wala ngeen gañe benn mairie ndax ñun gis nañ fi ay mouvement ak ay parti politique yoo xam ne mosuñoo dem élection mosuñoo am député chaque jour ay langaamitu kese. la ñuy def te bu élection jotee vraiment ñu bëgg a euh, bëgg sonal bëgg a sonal doomu aadama yi am na si sax ñoo xam ne dañuy luye ji seen récépissé yi yéen liggéey Sénégal lan mooy seen i ambition concrètement bon comme li ma lay wax depuis 2012 2013 ñi ngi fi euh, ñaan nañ yàlla sax dépassé loolu ngay wax pourquoi pas jigéen dem présenter wu en tant que président je pense que loolu yéen góor ñi war ngeen si mën a jàppale lii problème bi kay non lii problème bi mooy jigéen moo dul jàppale moroomu jigéenam pour mu fàllu tey su ma taxawoon yow nga taxaw góor ñi la ñuy foteel parce que même sa moroomu jigéen moo la dul wóolu pour jox la réew mi mais bëgg nañ daal bokk ah loolu de wax dëgg yàlla xaw ma ko man Sénégal laa Sénégal non xaw ma Sénégal dañ ne non même ñi jàng par exemple waxuma la sax ñi jàng alxuraan mais ñi jàng sax ni intellectuel quand tu jigéen jiite leen mais c'est tout un ñoom bëgguñu jiite jigéen jiite leen mais boo nit bu demee bay taxawal parti politique am wala mu taxawal mouvement politique am di ci def xaalisam di ci def alalam di ci def coonoom ànd ak yeneen i nit ñooñu tamit di ci def seen alal di ci def seen coono je pense que pour ale loin moo tax nit ki di ko def. mais euh, yéen euh, yéen jigéen ñi politique Sénégal. kenn mënu leen see génne parti politique bu fi am doole jigéen ñi ñu moo tax parti boobu am doole. yéen ku fi fal ku fi fal ku fi ñoo la fal. yéen leen fal non seulement yéen yéen a mën a dajale ay nit. yéenay def euh, yéenay rassemblé nit ñi ba pare tamit dëggu bi am ci euh, sincérité bi ci am tamit yéen jigéen ñi la. mais tamit dañoo gis ne yéen da ngeen di fexe daal bay jàppale góor ñi góor ñi di jiite ay institution euh, di jiite mairie bëri assemblée nationale di nekk président de la république mais yéen lan mooy problème bi yéen. man wax dëgg yàlla foofu moom mënu la cee wax dara jigéen daal xanaa <laughs> moom la yàlla bindee noonu waaye tey bu nekkee ñun ñoo jur doom yi. Mm-hmm. ñoo jur jëkkër yi ñoo jur papa yi ñoo jur yaay yi ñoo jur ñëpp ñun jigéen yi. Mm-hmm. ñoo jur président yi ñoo jur ñëpp ba pare nag ñoo leen di fal. Mm-hmm. fii ku fi fal ñoo la fal. waaw ñun ku fi fal ñoo la fal kon boog nag moo tax keroog ma wax ko ci benn meeting ñu war a am fulla am fayda. xool ñi ñu teg xool ñi ñu fal bàyyi 2000 yeeg yi ñuy jox ak 5000 yi ñuy jox pour ñu fal leen ak champ douche t-shirt yi ñun jigéen war nañoo dépassé largement loolu jigéen ñi war nañoo mën a yaatal euh, biir euh, langue politique bi parce que. Euh, yéen aussi. macha allah tarkaal la yéen a ñu gis moo tax it takkoo leen ñu yéen ñu fi bàyyi am nga li ñuy wax rek jigéen ñi war nañoo mën a ñëw te je les invite ñu ñëw ci biir langue politique bi mettiwul. ngëm-ngëm la te li ngay def na nga ko gëm dafa mel ne nga yor benn comme yow li ngay def nii danga ko gëm journalisme mi ngay liggéey da nga ko gëm danga ko bëgg soo ko bëggul woon doo ci réussir je me que nit ki war nga mën a ñëw xeexal sam réew xeexal sa sab doom sa xeexal say sët parce que yow yaa fi nekk bàyyi nag sandwich yi ñu leen di jox ak 2000 francs yeeg 5000 francs yi fi ñu toll nii mbënd bi li muy métti métti métti métti yëpp bu élection jotee fàtte nañ ko seeti ji nañ leen dem ci ñoom jox leen ñeenti téeméer jox leen sandwich dig leen digg du jeex ñu fa ñu fal ñooñu te voilà. jërëjëf euh, Ndeye Sow Leila mbokk yi moom la ñu invité tey euh, ci rajo réew mi FM ci seen émission pencum réew mi moom mooy euh, jiite mouvement liggéey Sénégal mu bokk ci coalition Jotna léegi yow yaa ngi bokk ci coalition na élection locale yi nga xamante ni tey moom la ñu dëgmal dafa am ay enjeu yoo xamante ni am na si ndax am na ay coppite yoo xam ne ay changement yoo xam ne def nañu ko ci ci élection yi léegi. ki nga xamante ni tey mooy nekk euh, tête de bu gagné moom mooy nekk maire directement wala mu nekk président conseil départemental directement euh, loolu mu nekk point boo xam ne euh, ñu bari jàpp nañ ne point bu am solo la ndax bu njëkk conseil ñoo doon fal maire bi te conseil yi léeg-léeg corruption yépp daf ci doon am yow lan moo ci sa xalaat yi ci ci point boobu non da nga ne kii gagné mooy ci coalition kii gagné mooy nekk tête de liste. maanaam tey par exemple tey liste bu nekk liste bu nekk ki nekk si tedd liste bi sama liste man mi nekk tedd liste bi bu gagné amoon man maay man maa fay toog nekk maire directement euh, waaw mais je pense que des fois ñun euh, am nañ beneen yitte sax boo xam ne war nañ koo mën a jël maire boobu tey man su ma demoon ba nekk gagné maire bi war naa mën a jiital koo xam ne si man la nekk sama benn élément bu nekk ci man sama benn militant wala sama benn responsable ma jël jox ko poste maire bi parce que pour man am na yeneen yeneen ñu war a mën nañoo nekk ci seen ginnaaw parce que ñi ñu ànd parce que ñëpp ay jeunes lañ voilà moom laa wax ci pas sax man ñu nommé ma pare ma soog a jël da parce que loolu mën nekk hmm. mais tey bu ma doon def sama liste mën naa jiital koo xam ne ci man la nekk sama benn responsable wala benn jeune boo xam ne leer na ma muy góor muy jigéen bu ma ko fi tegee liggéey bi ñu bëgg suy suy gox bi mu am fi dina ko mën a doxal. d'accord mais bu njëkk euh, conseil yi ñoo doon fal ñu ne corruption jënd ay conseils yi daf ci doon am ndax nit da doon nekk tête de ci benn localité ñu jàpp ne moom mooy nekk maire euh, bi élection yi passé ñu dem jënd ay conseil lu mel noonu jàpp naa ne point la boo xamante ne bu am solo la si dialogue politique bi. mais nit ki ñu koy def nit bi ñuy jënd moo ko war a nangu. ndax moom chaque jour da dégg ñu ne ba tubaab da koy wax ñu ne kenn ña naka ñëpp am njëkk. mais nit war ngaa mën a ñàkk bañ am njëg nag quand même. d' accord léegi euh, caution bi 15 millions la ci municipal 15 millions départemental. Euh, muy million millions. Euh, caution bi ñeen ñu jàpp nañ ne dafa dafa xaw a exagéré dafa bëri yow lan moo ci sa xalaat. noo xawut a exagéré c' est c' est c' est grave <laughs> c' très grave 15 millions ci loo xam ne dañ ne normalement local warta am caution ñu dem booy laaj sax. waxuma cinq mille même ñun cinq millions yi ñu doon wax sax di proposé keroog bi ñu demee euh, Ngor Jaarama même les cinq millions étaient trop tey am nga koñ xale boo xam ne ma nga dëkk Touba ca koñ ba leer na la xale bi buñ ko defee maire mu mu mu mu jëmale euh, euh, gox bi kanam mais xale bu fan lay jëlee benn sa 15 millions bu mu joxe wala benn 10 millions wala benn 5 millions effectivement peut-être nee nañ dañ ko def parce que yaama neex yi dafa bari woon ku nekk da ngay ñëw présenté wu ku ne mais lu dul sa wërsëg doo ko lekk. tey téeméeri nii mën nañoo présenté wu te bu ñu war a mën a nekk maire lu ñu nekk maire li ñu def mooy pour pour euh, nguur bi la li fi nekk mooy pour ce gouvernement là kii la ñu parce que ñoom ñoo ko yor am na nit ñi yoruñu ko même boo ko yoree am nga feneen lañ naan gumbatal tal na leneen lu du tabi teen am na feneen fu mu xaj am na feneen foo ko mën a dugal mais bien sûr 15 millions quand même 15 millions 15 millions ça millions loolu teguñu ko fenn kero bi ñuy woo ñuy ñëw Ngor jaaraama ñoom xamoon nañ ne ñi ngi woon nit ñi di ñëw boobu yàqu xaalis boobu yàqi nelaw boobu coono nga teg ko ay nit te yow xam nga la nga neef nar a def li ma wax démb rek ku sa wujju di sang doo set. kon jaay doole la. non et puis <laughs> fait ce qu'il veut bu nekkee yow sa wujju mooy tànn yow ñaata la ñuy def dépense yi biir kër gi <laughs> yow moom di nga sonn di. d'accord mais euh, mais tamit tey par exemple tey yéen d'accordu leen euh, parenage bi ci élection locale yi. ndax bu doon tey d'accord ngeen parrainage bi ki nekk ci koñ bi te amul xaalis même su demee parenage du si financé benn xaalis te bu boobaa nit ñi dinañ ko parrainel su dee bëgg nañ ko ñu mën see natt kon ñan ñoo war a dem ci élection yi mais il faut ñu xool benn système boo xam ne nag wax dëgg yàlla euh, mënoon na da ngay jekk-jekk rek def ay élection noonu candidat bu jóg kon boobaa mën nga fee gis cent candidats ci benn localité ci benn localité sans liste boobaa tamit problème lay doon ci élection il faut ngeen nangu benn affaire caution bi ñu teg ko wala ngeen nangu ñu def parrainage ndax bu ñu defoon parrainage tey go gox bu nekk di nga xam kii bu demee élection dina gagné wala du gagné. ba tey ñu ngi ci parrainage. non local non parrainage financier la ñu nekk. xam nga ah. dafa am parrainage. parrainage bi moom financier la. waaw ah, parrainage kay am na yéen a tànn financier ah. waaw loolu moom dëgg la moom. Ah, nit ki moom loo nangu ñu teg ko ñu tegoo la nga tegoo ko daggan na. Mhm. waaw lu ñu loo tegoo rek dagan na. Mhm. ñoom ñoo ko na effectivement gars yi ñun ñoo ko nangu mais pour man dina nekk somme boo xam ne c'est vraiment raisonnable parce que keroog bi ñuy demee fa ñu fa ca waxtaanukaay ba euh, bi gën a néew gën a néew gën a néew 5 millions 5 millions nga doon dégg ñoom euh, gouvernement ñoom ñoo jël seen Benno Bokk Yaakaar boobu ñoom ñoo jóg ñu ne nañ leen ko defal nañ ko def 30 millions wala ñu def ko 40 millions et c'est ce qui ce qui ont fait effectivement aussi loolu c'était une très bonne idée parrainage boo xam ne dañuy xool diw mi nekk fii Mbàkke wala Touba nan lañ koy def ba xam kii mën nañ ko fal kan ak kan moo ko defal parrainage et tout. Mhm. mais bon voilà xëy na <laughs> nii lañ ko bëggee daal te nii lañ koy defee jeex na. mais franchement jaaduwul 15 millions 15 millions 15 millions muy 30 millions jaaduwul c'est vraiment excessif dafa bëri. d'accord euh, mais li nga xamante ni tey euh, mooy. Euh, euh, élection locale yi yow nga bokk ci coalition Jotna Euh, coalition boobu noonu yow lan moo la ci lan moo la ci dugal coalition Jotna. Euh, coalition Jotna c' était pas coalition Jotna léegi nii parce que bi may dugg c' était avec Sonko président Sonko président laa demee en 2019 présidentielle yi ñu ànd ak moom dem local dem euh, présidentielle ñu jóge présidentielle ci lañ taxawal Jotna c' était encore avec le président Ousmane Sonko. Mmh. àdduna di dox àdduna di dox ba Sonko génn ci mais bi bi may bi may ànd na ñoom Ousmane ci présidentielle yi c'était par rapport ak man éthique ak valeur yi nga xam ne moom laa demee woon législative gis ko ci ñoom gis ko ci Ousmane Sonko man moo ma ci dugaloon mais mën nga dem nag gis dara ci nit ki fekk la nga la nga yaakaaroon ca biir du loolu moo am mais yàlla def na nañ man génnuma ci coalition boobu je suis toujours bi Ousmane demee topp ma ko ànduma ak moom dama préféré rester ci biir coalition euh, jot na bi kon da nga am déception ci Ousmane Sonko bon ndax da nga ne li nga yaakaaroon euh, dem nga ba si biir gisoo ko. waaw y' a beaucoup de choses yoo xam ne peut-être du lépp la ñu mën a wax. ah mais loolu mais non non xam nga tey bu nekkee nit boo xam ne dafa bëgg a yorum réew. man pour man ki bëgg a yorum réew. du génn ci coalition. coalition ba kay day nit ñaay génn wacc la fa mais yow doo génn ci coalition ku bëgg a yorum réew nga taxawal coalition coalition bi kenn taxawalu ko ñun ak yow ñoo ànd a taxawal ko. man keroog ba ñuy taxawal coalition ba maa ngi sama biir kër tëdd dañ maa woo ne ma affaire bi day continuer parce que pour man coalition bu présidentielle jeexee jeex na mais ils ont préféré continuer la coalition taxawalaat ko toi taxawalaat boobu mooy moo indi coalition jot na ba tey yàlla def na it bi mu génnee ba ña ko topp it bëriwul dañ koy conté ña topp Ousmane bëriwul dañ koy conté parce que munoo ànd ak nit lu day ne présidentiel déjà yaa ngi dund loo xam ne yow au fond de toi xam nga ne du lii nga war a dund ak nit ki parce que du loolu mooy coalition ndax euh, à chaque fois boo dégg Ousmane danaan euh, moom kese moo dem Pastef kese moo gagné quoi présidentielle yi mais munoo ànd ak 54 personnes je pense que 54 personnes boobu am na koo xam ne s'abonne à voter parce que mi ngi ànd ak yow yaayam wala magam wala rakam wala dara dina am ak wala xaritam dina am benn voix boo xam ne jóge na ci moom. def nit jox na la ko ndax moom voilà kon il faut être vraiment reconnaissant par rapport à ça aussi. Euh, kon nekkul ku reconnaissant. non je on dirait pas on dira pas <laughs> je vais pas dire ça quand même mais bon mi ngi noonu daal. non mais. Euh... non mi ngi noonu ah mais li muy wax yéen ñëpp ko dégg moom kese moo dem gagné ñaata ñaata pour cent la am moom moo ko am. voilà mais loolu du reconnaissance loolu mu def. ah doy na wax de non en plus il le disait flagrant bi mu koy wax ne ñi ngi fa woon te je pense que wax jooju sax mosuñoo génn ñun tamit démentir ko wala ñu wax ko mais bon mi ngi noonu daal. Euh, lan moo tax bu ngeen ni ñemewu leen a wax dëgg-dëgg li ngeen xalaat wala li dëgg gi ci Ousmane Sonko. kan man <laughs> buñ ci eggee ñu war koo wax dañ koy wax man j'ai pas froid aux yeux mais yow da nga ñëwoon man ah, ah, d'accord léegi euh, yow da nga ñëwoon ci da nga ñëwoon ci euh, coalition Sonko président mhm. nga amoon yaakaar ci Ousmane Sonko ne war naa mën a jiite. réew mi nga ànd ak moom ci. njëkk ak ci njëkk teraanga est-ce que ànd bi nga àndoon ak moom ci 2019. Mhm. nga bokk ci coalition Sonko président est-ce que am nga ci ay regret. waaw si c'était à refaire j'allais plus refaire quand même. doo ko defaat déedéet mais xam nga en politique il faut jamais dire le mot jamais on ne jamais dans la vie parce que euh, y a beaucoup de choses qui se tissent. voilà franchement waxuma la sax moom ma plus grande déception mooy lu day ne coalition yow nga nekk fa nga génn fa yow yow yaa taxawal coalition samp ko yow nga wocc ko maanaam nga takk sa jabar indi ko ci biir kër gi yow góor bi nga fay dem wocc ko ci biir kër gi. mooy sa déception. waaw voilà man pour man kii responsable kilifa du def loolu. du def loolu. d'accord léegi euh, bi mu génnee ci coalition jot na léegi est-ce que coalition jot na tamit tekki na dara ah est-ce que euh, Ndeye Sow euh, Leila coalition jot na bi nga bokk nii ñenn ñi dañoo jàpp ne ba fa Pastef jógee coalition bi amatul amatul doole. non xam nga loolu ay wax la rek. Pastef teewul woon lenn lu war a tax suñu parce que la preuve que bi mu demee ba tey teru ñi ngi dund ay nit a ngi ñëw di adhéré di gëm ñun lañ fa nekkee ay kilifa ñi ngi ñëw ba tey ay nit yu am maanaa am solo ay nit ñu ñëpp xam ñi ngi ñëw ba tey di adhéré ci biir coalition bi te kenn saxalu leen suukar kenn saxalu leen lem te man li ma fa gis même tey bu doon coalition bu tekkiwul dara sax respect ba fa am entre ñun rek man doy na ma parce que pour man àdduna xam nga lan la respect yëg-yëg nit ki bu la joxee cër am yëg-yëg rek lu mu la desalatu dara voilà. waaw mais yow bi nga nekk euh, ci coalition na usman Sonko avant muy génn coowal Adji Sarr la ñëwoon na mais est-ce que yéen taxawaay bii si waroon pour jàppale ko defoon ngeen ko. non xam nga li may wax chaque jour ma ne ñeenti miir yooyu la fa xew Ousmane ko xam ak Adji Sarr kenn mënta xarab Ousmane Sonko kenn mënta xarab Adji Sarr li ñu mën a xarabee Ousmane Sonko mooy lu mu fa doon def. parce que wax jooju yenu maanaa dama am man j'ai un rhumatisme fessier man rhumatisme mu nekk ci xottutaat laa am bu metti sax. pour ma dem dante guerre ñu defal ma kinési rek problème la ndax sumeeku ba ma war a sumeeku ndax sumeeku dafa metti kon bu nekkee da am lu mel ne nerf sciatique wala leneen ak leneen benn mettit da dem ci spécialiste mu defal la ko doo dem ci benn salon de massage clandestin parce que man noonu mu à l'entrée di nga xam ne rajo moo fi nekk moom lañ fi bind mais bu nekkee fa ngay dem dañoo bind suite beauté suite beauté en anglais je pense que mooy salon de beauté foofu du salon de massage déjà ça c'était du clandestin kon Euh, régner sur ce Sénégal la nekk président Sénégal foofu du woon jëmukaayam man peut-être là j'ai vraiment ça j'ai eu un mal de cœur et je lui ai dit nee naa ko man je suis Adji man déjà dañu naan féministe la man mënuma gis Adji Sarr on a eu l'âge de Adji on a eu à faire des bêtises yu Adji Sarr de peut-être euh, voilà kenn mënta juger Adji Sarr ku dul Adji Sarr kenn mënu ko juger il faut pas juger les gens en fait et je vois que te dama gis bi Ousmane bi problème Ousmane Sonko bi amee dañoo am ay imaam yu bees maanaam fu ci keroog ñëpp nekk nañu ay imaam ak i sëriñ fii Ndakaaru Njaay ku nekk ak sa version bu bees ya non en man ce que j'ai vu bi loolu amee musuma xam ne Sénégal ci foofu la tollu daal voilà te ku nekk ngi wax ku nekk fii ñun ñu ñaar a fi nekk li fi nekk ñun ñoo ko xam auditeurs yi xamuñu ko ni ñu toogee man a yow ñoo ko xam kon diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ginnaaw yàlla moo ñoom ñaar rek ñoo mën a wax. mais mais ñu bari dañuy ŋàññi Adji Sarr. dañ koo tegul fenn rek genwaal gi yëpp ay naa fekk lañ parce que mënoo ŋàññi nit koo xam ne man dafa mel ne man ma war a ŋàññi Ousmane Sonko su ma ko defee damay def fi naa fekk man leen rek laa ko ŋàññee lu mu fa doon ut man c'est ça mon problème ut fa woon dara. waru foon a dem waru foon a dem parce que pour man am njub ñàkk njuba di weesuwul nga toog ba xaaju guddi. nga ne yaa ngi dem nank taa oto du chauffeur du garde corps du kenn jabar yëgul bàyyi yëgul maam yëgul ke xarit yëgul kenn yëgut kon kay ab defoo am di defoo am njub booy defum njub fooy dem war nañ koo yëg nga ne sa jabar damay dem defi massage fii benn góor nag téeméeri góor fii ci Sénégal boo ci dindee ñett yaa ko ñemee wax seen jabar wala ñeent yi ñeme wu ñoo wax seen jabar ne dañuy dem massage mm-hmm. looy looy bañ gàcce fekk la ci bul ca dem. da nga jàpp ne dafa làqatu dem daal. mais ah man loolu ci li ma dégg. Mhm. loolu moom waxuma ko mais ci li ma dégg ñu expliqué ko bi mu fay dem famille am n'était pas au courant. Mhm. te même bu du dara il faut penser waxuma la sax Ousmane Sonko mais imaginer problème yu mel nii man jigéen laa nga war a xalaat ay jabaram ay doomam famem na ban situation la ñu war a am moo tax lu waay di def rek wala lu waay di wax rek war nga ko seet war nga ko euh, kii ñiy xas aji saaxis aussi en fait euh, je je dis sax yenn yéen yi amoon jot la quoi di war a lijjanti diggante Ousmane Adji Sarr fu Adji Sarr dugg fu Adji mais attends c'est quoi mais waxam ji gëm nga ko. yoroon na ndax yoroon na déggoo ma waxu yor Adji Sarr na maanaam ak waxu Ousmane Sonko tamit ndax yoroon bu dof bu nu wax dofee nopp ba koy dégg warta dof. Hmm. loo bëgg wax foofu. non li ma bëgg a wax mooy wax ma sax viol mais ñaari nit yu nobante wala yu seqante boo ko gisee xam ko Ousmane Sonko ba tey weddiwul ne moom ak Adji Sarr dañ doon génn il a tout nié violé wu ma ko defuma ko lii def may mais ba léegi déggoo Ousmane Sonko ne moom musuma seq ak Adji ñàkk fayda wala musuma ngoro ak Adji loolu kenn déggoo ko ko man nag je juge léegi Adji Sarr li mu wax. Mm, en tant que jigéen li Adji Sarr wax. xam nga Adji Sarr man je me dis déjà maa ngi dégg nit ñi naan bi muy wax dañ ko takkal micro dañ ko roofal kii mais du dëgg boo yàggee dem ci plateau xam nga ne loolu Adji Sarr takk du loo xam ne dañ koy dañ koy wax nit ñàkkewul noonu nit maanaam journaliste yi fa nekkoon xaa ñàkkuñu boobu ñàkk fayda ak ñàkk ñàkk bopp. kon daal da nga jaaxaw. li ma bëgg a wax mooy man su ma ko doon jox conseil loolu am sax du am damay toog xaar jugement rek lii am am na c'était pas la peine xaw ko ko conseillé pour mu toog di wax ba pare quand tu l'entendais parler tu sais kii li muy wax xamu ko sax. waaw xamu ko mooy ñemewu ko xam nga nit ñun ba tey dañuy dem ay dañuy dem ci écran mais ba tey ñemewuñu écran boo soogee egsi rek yaa ngi yaa ngi yaa ngi patiner quoi voilà loolu écran du lu nit du miin man bu ne man mii xam écran xam naa ne bi muy wax elle pouvait elle pouvait pas voilà miinu ko moo tax wax ji demee noonu mais bu nekkoon kay miin na ko wax ji du demee noonu mais yow en tant que jigéen jigéen nga dégg euh, aji Sarr wax ak Ousmane Sonko ndax ñoom ñaar jàpp nga ne amoon na benn relation bu dox seen diggante ah, yow en tant que bien sûr moom laa leer beneen kay am na déggoo man la bu wax dofee nopp ba koy dégg warta dof am na ne waaw mais am nañ lu ñu seq mais li ci des nag maanaam pas lu ñu seq côté góor a jigéen maanaam sëy bi quoi parce que loolu ñoom ñoo xam quoi ñoom ñoo nekkoon ci ñeenti muur yàlla moo leen fa seede ñoom ñoo xam mais dama ne la bu wax dofee nopp ba koy dégg warta dof fi coow li yegg waru fa woon a yegg mais yéen jigéen ñi est-ce que lu tax lu leen taxaw jàppale Adji Sarr man bi muy am dama Covid dama feebar ma ma metti lool nag ma mere Ousmane Sonko lool ndax gisewu ma ko woon foofu góor bu ne góor nga su ko neexee doxaan su ko neexee takk jabar su ko neexee am na droit ba am ñeenti jabar mais façon bañ ko defee moo baaxul nañu traité dossier bi moo baaxul xam nga tey bu nekkee yow dañ lay jiiñ dëmm ngay soccoo yelu liir la daal yaa tooñ sa bopp man foofu rek laa ko meree ndax yow munoo am sa wujju nga koy may lum la lum la yabe dëgg la de mënoo am sa wujju nga non man. affaire bi dafa ma naqari complot xam nga li gën a bon. moom wax na ko Ousmane Sonko mës na koo wax bi ñu jàppee waajooju ci foo billet dafa ne li gën a bon ñu jàpp ab ponkal nga naan dañ maa complot kenn complotwul kenn. bu fa bu fa manee la kenn complotwul kenn xam nga complot mooy lan nga dem foo xam ne nit ñi xamuñu. wala ñu tey bu nit bu la bëggee fexeel bu demoon ci góor di massage sax ñu ne ab góor jigéen la góor ba da koy sàkk day sàkkoonteeg góor bi kon boog yow bu nekkee yow dèjà dañ la visé nit ñaa ngi la bàyyi xel ñi ngi yàkkamti nga def benn faux pas bu bu ndaw ndaw loo fay ut ak loo fay demee man du ma may sama noon lu ma reetaanee aji euh, damay dégg ñu ne dafa ëmb démb sax ci réseaux sociaux yi ñu ne dafa am doom bon xam nga nag yéen suñu mbokk journaliste yi mbokk réseaux sociaux yi man daal damay damay toog ba ma mu leer ma rek ah bien yoon man kay yu am dañ ma koy yónnee yëpp dañu dañu koy yoone ñu ne am na doom bu góor bu nuroog baayam ba àddinay baax na góor ndayam lay nuróol looloo ma xaw a jaaxal nag <laughs> ba àddinay baax ah. góor ndayam lay nuróol jigéen jigéen nuru baayam ah non non je sais loolu moom franchement mënu ma wax waaw mënu ma wax déet buy doom ñëwee rek ñu jël d'accord te xam nga ne doom moom bu juddoo nuru baayam wala nuru ndayam rek benn la ciy doon. bu ñëwee daal ñu ngénte. bu ñëwee ñu ngénte ba mu neex. d'accord <laughs> jërëjëf. Euh, ah, d'accord jërëjëf euh, Ndeye Sow euh, Leila mbokk yi moom la ñu invité ci seen émission pencum réew mi léegi nag ñu génn foofu ñëwaat ci fi ñu nekkoon ci élection locale yi. xanaa Ousmane am na bayra nag. am na bayra ndax coow li jeexoon na waroon na war na jeex depuis xanaa. non non non mais da nekkoon ci da ngeen bokkoon benn coalition bu ngeen. dëgg la dëgg la moo tax léegi yow jot na fan yi gis naa ne dem ngeen dem se dem fekki beneen coalition euh, wala bokk ci ab coalition ñoom CRD ak yeneen parti politique mu nekk parti politique yu baree baree bari euh, yéen coalition boobu noonu lan moo tax ngeen dem ci au fait euh, ñun ak waa CRD moo tax damay dégg ñu naan non yéen da ngeen a bàyyi ba ñoom Ousmane siiwal seen lii non non ñun bi ñuy waxtaan ak waa CRD yàgg na du tey local yi ñëwaguñu wóor na rasulilah bi ñuy waxtaan ak waa CRD ba am na jour boo xam ne dama dama dem gis euh, président Abdoulaye ñaan di ci wax ak moom ne ko mais affaire bi dafa yéex parce que ñoom ñi ngi bëgg ñu defante lii ak lii ak lii on en a largement parlé et loolu c'est des mois en arrière kon tey bu ñu demee ba lii am rek dañ ko officialiser du leneen te ñun suñu porte yi ñu ngi ubbeeku ba pare ñun ñi ngi dem vers ces gens là ñi ngi waxtaan ak ñoom ñi ngi gisante ñi ñu war a gisanteel ubbuñu suñuy bunt et je me dis que yi bés bu ñu ko euh, opposition bi dof dofloo ba def ko ñetti pôle Macky Sall dina leen yey ni Shingoom Hollywood dem jëli ji mairie yi mm-hmm. ñi la war a def benn kon ñun mënuñu xool rek ne CRD la ñu àndal du ñu dem ànd kii wala du ñu dem ànd ak en politique sax loolu amut looy taamoo loolu mais est-ce que weesuwut instant bi fu fu opposition bi yëpp di àndee est-ce que weesuwut instant bi non xam nga maanaam man Sénégal laa gis lu dara mënu nekk daal xam nu ma ko mën a expliquer maanaam man yow dooma jiitu man duma la jiitu yow dooma jiital mais kenn du mës a réussir yàlla koo gis dafa am ko mu teg ci kanam man tey bañu ma ne yow mii sama Abdou Khadre mii bu ma la tegee fii ci kanam la may lijjanti dina sotti man maa yor xaalis waaye yow yaa yor kàddu geeg wax jeeg macha allah tarkal la bay rek kon yow laay jiital dëgg loolu du hmm. Sénégal kenn du jiitu kenn yow pour ñëw faiblesse la quoi yow benn nit jiitu la benn nday saw jiitu la wala benn diw jiitu la wala lii faiblesse la chaque jour grandeur la mais loolu yàlla moo ko moom kenn mel moomu ko. mais yéen seen coalition boobu est-ce que tekki dina tekki dara ci élection locale yi mooy CRD ak ay jot na yooyu. ah mais pourquoi pas pourquoi pas. xëy na am na leader yoo xam ne du ñu présent fi ñu toj bëri na da ngay gëstu xoolaat bu baax. parce que doo xool fii coalition bi yëpp da tojee da ngay xool par benn leader ba pare na nga soccee boole coalition bi. parce que tamit comme li ñuy wax bu la Sénégal ñoree rek am na lu bëri loo xam ne da koy def am na yoo xam ne mu koy def te doo ci boole wax ju bëri bërki leen bi ñuy seeti waa mbënd bi di waxtaan ñoom affaire yi du du télé du journal du dara am na ñoo xam ne tojuñu fenn télé yeeg rajo yi dong la ñuy neexal ak a fay ñu leen di wane ba ñëpp xam leen su ñu defoon ni ñoom it mu dal mu dal am na ñoo xam bu ñu ko defoon. ci coalition mu mais est-ce que yéen euh, coalition jot na avant ngeen di dem ci ñoom Abdoul Mbaye CRD ndax jéemoon ngeen a dox wala am na ñu doon dox diggante CRD ak coalition ñoom Ousmane Sonko bi ndax ab Ablaye ñaan mi nekk coordonnateur bi am na ay relation ak euh, Ousmane Sonko euh, seen ko alliance boobu Ousmane Sonko Khalifa Sall Karim ak sëñ Moustapha si pur ndax yéen mos ngeen a xalaat dem ci coalition boobu ak tamit koy taxawal ndax consulté nañ leen. ñetti question nga ma jox. ñaa euh, président ñaan ak Ousmane moom je pense que ñooñu ay frère lañ Ousmane yàgg na ko wax am mm, président Abdoulaye Niane wax yàgg na ko wax xamante nañ dañuy demalante dañuy dikkalante ce sont des amis mais bu politique jotee politique dafa jot man tey bu ma rayante woon ak Ousmane Sonko ci biir politique bi su ma génnee ne dafay taxaw ma kaf mu jàmm la ñu seq mais nag bu wax dëgg jotee war a wax ak askan bi da ngay wax li nga xalaat mu nekk dëgg ci yow Abdoulaye Niane ak Ousmane Sonko ce sont des amis ce sont des frères peut-être xëy na am na lu bëri loo xam politique waru ko mën a yàq kon euh, xëy na ñi ngi déggante xëy na ñi ngi gisante si sama xalaat bu gàtt Ousmane tey bu ñu fi tase woon dañuy taxaw nuyonte ka foore parce que c'est un frère c'est un ami voilà mais bu pour ñun du ñu consulter parce que Sonko bi muy génn ci coalition bi yéen journaliste bi ngeen ko laajee dafa ne heure bi du heure coalition moom dematul coalition coalition c'était pour le les présidentielles xaw ma c'était pour des élections élection amul kon moom warta mën a dem présidentielle je pense warta mën a nekkati ci benn coalition je pense que loolu la loolu la waxoon et Ousmane c'est l'opposant c'est c'est l'opposant radical parce que dafa am opposition radicale am non aligné am aligné et tout moom il est c'est un opposant radical qui a toujours combattu le système ci biir xolam ak xelam yépp dafa mës a wax ne Karim Wade nangam Khalifa Sall nangam kon je pense pas ay rumeur la rek je pense pas Ousmane Sonko dem war a mën a dem ànd ak Khalifa wala mu ànd ak Karim Wade <laughs> wala mu ànd ak pur par rapport ak moom li muy ah par rapport ak li muy prôné. anti-système. tu combats le système anti-système. munoo ànd ak système même lu la ko lu la ko lu la ko lu la ko kii may lu la ko situation may munoo ànd ak système te ba tey vaar a ngi fi ba tey les diir son là les écrits son là tu l'as toujours crié moo tax nag lu waaye di wax rek war nga koo xalaat di sóoraale ëllëg ndax en politique il faut jamais dire la moo jamais parce que nit ki mën na liggéey ci système bi xam nga xam nga ku du ku du soppeeku amut nit mën na nekk ci biir système bi dem ba ci biir xam ne nii muy liggéeyee doxul mu soppeeku moo tax il faut jamais dire le mot jamais man de ci sama xalaat bu gàtt laax ci ma yàgg a toog ak Ousmane di dégg Ousmane di wax ah da xam naa rumeur la rek gaw mu ànd ak euh, Karim Wade ak ah ku bëggul ci système dara di combattre système li système di def bëggoo ko yow dem nga ba toogoon benn jour ni ñii def maanaam dañ leen a war a rey génne leen fii ci dëkk bi parce que ñoom ñoo yàq senegal nga yekk leen xeteme. waaw mais yéen est-ce que coalition jot na tamit est-ce que miiri wu leen Ousmane ngir lim jóge ci coalition boobu non du tout c'est la politique man tey daf may arrangé ma ànd ak Ousmane arrangé wu ma ma génn pourquoi mere ko. man am yéenewu ko daxalu lu bon jàmm ak salaam rek laa ko yéene. mais xam nga tamit bu wax jotee da ngay wax li nga xam ne moom nga gis war naa mën a taxawal ab coalition aussi. mais pourquoi pas su ko moom su toogee xam nga wax waxeen moom du fi bañ Sénégal soo toogee ne da nga génn ci coalition parce que euh, bëggoo def coalition bëggoo def li te Ousmane li mu bëggoon man du ma ko ko defal Abdoulaye Niane du ko ko defal keneen ak keneen du ko defal mooy tey li li xew tey fusionné ay nit ñëw dissoudre seen parti seeyal seen parti man du ma taxawal sama parti nekk jigéen di ci kërtëti di ci kërtëti di ci kërtëti non ah ñi ñi ànd ak moom ñëpp bërki dem na ñëpp a fusionné ñëpp a sayte loolu daf ko yàgg bëgg pour rek moom kese mooy wax moo yor kàddu gi man loolu du ma ko defal benn nit ci àdduna mm-hmm. man du ma ko defal mindeef jël sama loo xam ne dama koo liggéey booba tey di ci def sama ñaq di jéego ko daanu di am di ñàkk ah lu ne xacc dee di xacc dund xacc lu ne xacc kaso xacc lu ne xacc ma ñëw di ko liggéeyal benn waxamaane pour joxo ko noonu. ah loolu euh, sama yaay liggéeyalu ma loolu. d'accord léegi coalition boobu euh, ci opposition bi euh, ñoom Ousmane Sonko xalifa Sall am na ko jot a léegi. non mais amagul xamama ma lu ma jaaxal yéen li ngeen di wax nii je pense que dafa mel ne amagul de xanaa. non ñoom ñoo ngi ñoo ngi waxtaan Ousmane Sonko Khalifa Sall Karim Wade ak PUR. dina ma jaaxal torop de. ñoo ngi waxtaan ñoom qui combat le système tu vas tu vas avec le système. d'accord léegi euh, opposition bi su dee da ngeen xaajali ko def ay ñett ba ñeenti coalition est-ce que seen avantage la. déggoo man la Macky Macky Sall va ñu bouffer tout cru <laughs> bu tubaab bi ma la laak maanaam Macky Sall ñuy lekk rek. loolu koy jaru wax bés bu ñu defee ñetti pôle waxuma la sax benn pôle ak juróomi pôle de dama ne la ñetti pôle bés bu ñu ko defee Macky Sall jël raafale raafale raafale kii bi comme que ñun opposition mënuñoo yeewu ba tey xëy na ba xaman na xaw ma dañoo man balaa may dee ñu ne ñii yàgg nañ fi mais ba tey kon xamuñu luy luy luy politique mais ñëpp tamit mënuñoo ànd ah non xam nga tey mënuñu sax nekk benn d'accord naa peut-être mais mais pourquoi pas sax pourquoi pas bu nekkee ku ci nekk Sénégal moo la ñor war nañoo mën a ànd bu nekkee man leer na ma ne yow mii place bi su ma la ko joxee nga am li man dama lay bàyyee place man c'est pas ce problème là su nekkee dama war a jël sama alal def ci dama ko ciy boole teg ci sama alal. waaw mais dama ne la yow li nga ma wax ni moo mënagul dugg sama bopp xanaa man ma dem ba gëm ko gis ko. ne Ousmane Sonko Khalifa Sall. Karim Wade Karim Wade ànd nañ. loolu moom bés su ma ko gisee ah xëy na dafa fekk beneen Ousmane Sonko ñu soppi ko de mais gëmaguma ko daal. mais mais euh, ñu bari ne nañ mooy coalition bi nga xamante ni tey mooy tax euh, euh, mooy tax benn bokk yaakaar panique ndax en ah, politique ci Sénégal ñu bari dañu wax ne su dee am na ñenn ñu Macky Sall faale wala ñu Macky Sall bàyyi xel ci politique mooy Ousmane Sonko Karim wàdd ak Khalifa Sall ndax mooy ñetti candidats yi gënoon a sérieux ci élection présidentielle 2019. 2019 Karim dafa dem. non mais ñoom mooy. non dama la Karim demut. Karim demul. Euh, Khalifa Sall demul. waaw ragal ñoom ñett ñëpp juste ma ne la ñoom ñett dafa am lu leen lié. ils ont des dossiers pendant en justice. ñoom ñett ñoom ñett. Ousmane Bosom a ngi pendant ñee xaw ma ba xam àtte nañ leen xaw ma daal nu mu demee ñaar ña ca des waaye ñoom daal ñoom ñett boo xoolee justice moo leen fa téye ñoom ñett. ànd bi sax ànd bi sax dafa rafetul ci gis-gis ak dégg-dégg ndax yow bu nekkee da nga am problème ak Macky kii am problème ak Macky kii am non astafurlah sax mën nañ ne bañ na wax Macky mais bu nekkee yow da nga am dossier fii ak kii am dossier fii kii am dossier fii seeni dossier sor sorantewul ba pare xam nga man des fois damay dégg ñu ne non li ñu li ñu defoon Karim Wade def ko Khalifa Sall moom la ñu bëgg a def ko Idrissa Seck moom la ñu bëgg a def Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko benn sénégalais lambda comme moom moo ko porte plainte une citoyenne sénégalaise moo porte plainte Ousmane Sonko c'est pas un truc de de politique Khalifa Sall yëfi politique la Karim Wade yëfi politique la Idrissa Seck yëfi politique la seen problème sax pour man nit ñoom wax nañuy war a ruus di def comparaison ak euh, seen problème wu Ousmane parce que je pense que c'est c'est c'est c'est vraiment bas quoi dafa am loo xam ne jarul sax di ko tëkkale mais li fa li ñoom ñaar ñoom ñett daal li leen liyee mooy justice. waaw mais mais tamit euh, Ndeye Sow euh, Leila est-ce que man nga weddi wala ñeme ngaa weddi wala nga bañ a Euh, posture bi Ousmane Sonko am wala doole bi mu am jamono ji maar de daal di du ko ko ànd naa moom nag dar naa ko ni dar maa di ànd moom pratiquer ko xam naa ne kay macha allah tarkaal la sama xaalis yi ne. am ba mu jëloon rek bu ci continuer woon heure bi kenn waxatu ko. Mhm. Sénégal yi kenn moomu leen de seen bët lañ yor di xool di xippee ko xool. lu ko yàqal. ah moom est-ce que dara yàqal na ko dañ dem ba ci kanam yàqoogul yàlla baax na waaye bés bu ànd ak système bi de ah. bu buñ ko waxul ci ko xam nga comme sénégalais ñun moom maag man ñëpp a yem dañoo naafeex li ñuy wax ci kaw suuf ak li ñuy wax ci kaw du benn. li ñuy ngun nguni. d'accord mais léegi euh, yéen élection locale yi man seen coalition bi nag yéen waa jot na ak euh, yéen waa CRD ñoom Abdoul Mbaye vraiment Abdoul mbay boo doon laaj sénégalais yi fan lay milité neewaana sénégalais yu la koy wax. Mamadou Lemine xanaa Kaolack dëkk Baam Mamadou Lemine Diallo aussi Mamadou Lemine Diallo aussi amul base politique. Thierno Alassane Sall boo demoon Thiès wax dëgg yàlla mënul gañe mënul gañe Thiès. Euh, ku mën a gañe Thiès euh, Ablaye Niane. Touba mu dëkk Ablaye Niane Touba gee mu dëkk ñu baree baree bari bi mu nekkee ci coalition Sonko président nekk xam nga directeur campagne la ko ñu baree bari euh, que ràññee. mais Ablaye Niane avant boobu du nekkoon na beneen directeur directeur campagne fa la yàgg naa politique Ablaye Niane. mooy yàgg na politique mais visibilité bi mu am ci 2019. xëy na boobu xam nga tey des fois dina politique. mais comme li nit ñi di xëccoo soxlaa gu ko woon quoi pas man je parle pas de Abdoulaye Niane je parle de je en général tey par exemple mën nga nekk ci politique tu n'as pas encore besoin de visibilité parce que boo ko soxlee xam nga fi ngay jaar télé yi yee la koy jox mën nga saa yoo xëy ñu invité la ci benn plateau nga dem toog fur et à mesure avec le temps man je vois des gens yoo xam ne man xaw ma leen woon ce son ce sont pas des politiciens wala bu ñu ko nekkee presque analyse politique la ñuy gën a def comme li may def la ñuy mais tey bu ma leen di déglu ci ci télé mais pertinence bi may gis ci ñooñu te nit ñi xamuñu leen c'est que ce sont des choses que je remarque comme ça tu regardes la télé non je te dis ah bu ñu la defalee analyse politique wax la li ñu ko gisee mais da am sax chair de poule parce que tu sais que kii li muy wax daf ko xam te pourtant kooku kenn xamu ko te récemment ci semaine bii rek j'en ai vu tellement ba démb maa ngi seetaan benn chaîne am na benn waay ñett ñaar ñi ngi toog ci plateau bi déjà ñaar lañ ah mais bi ma gisee ñuy wax dama ne ah bon ce de genre ñi ngi fi am ba tey d'accord léegi te il euh, cherche pas à être nit mën na nekk dama la bëgg a wax ne la nit a ngi politique nànk nànk nànk nànk peut-être bu heure bu bëggee feeñ yoo xam ne nit bu bëggee siiw xam na fi muy jaar voilà ku bëgg siiw xam boo fay jaar te yeeg rajo yaa ngi fi di boo fa jaaree siiw d' accord léegi euh, liste. internet yi lu jëm ci wàllum liste électorale yi ci wàllum mbindu mi gis nañ ne euh, jafe-jafe dafay am ci délivrance certificat de résidence yi yow lan moo ci sa xalaat. tiit doo nga leen jàpp ñoom loolu dañ ko waroon a euh, rusa def maire yeeg ñooñu di ko def dañ ko waroon a rusa def ndax ñoom heure bi waroon nañ leen fee bàyyi ñun sénégalais yi ñoo ko nangu ñoo leen fa bàyyi ñoo leen fa teg lii mësta am ci waxuma la histoire du Sénégal mais histoire u àdduna nga nekk maire ba sa maire jeex nga toogaat fi ñaari at. yow amoo looy rus amoo looy seet amoo looy jomm muy maire bi nekk opposition muy maire bi nekk pouvoir waaye nag ñun ñoo leen fa ba gis nga nit loo nangu ñu teg la nga ko tegoo ko daggan na du woon yoon kon ñoom war nañoo rus sax nit ñi ñuy wax waxu certificat lii certificat de lii war koo délivrer war koo jox nit ki mais nit ki yaa xëyti ñëw na soxla certificat ñëwul nga jox ko certificat mu dem yoonam boo wóoloo sa bopp rek mu lenn la yow mi di faloo faluwaat maa li li li ñu tëxëñ ci biir kii bi nu mu tudd local yi moo bëri xaalis bi bëri na certificat kayit yi ñi laaj bëri na en fait franchement. Ah, mais j'ai le cœur gros quand même. que opposition bi yéen ngi def ay campagne de sensibilisation ngir askan wi dem bindu ji. mais bien sûr loolu koy yóbbu xam nga benn waaye ma koy laaj de ma ne ko xanaa nag lu ñuy def rek médiatiser ko nag bu yàggee da ngay soof sax nit ki ñi ngi sensibiliser ñi ngi wax ak ni ñi ñi ngi seeti waa mbënd bi ñi ngi waxtaan ñi ñu war a waxtaanal. d'accord mbënd mi am na xëy na tamit des fois di gis famille boo xam ne du ko tal mais mooy dinañ waxtaan ak moom jéem ko convaincre ne ko li da ko war a def parce que tey li tax mbënd bi di war a denc yow mooy ngeen dem bindu ji ba tax ngeen mën a votel kii leen intéressé ki nga xam ne leer na suñu gox bi dinañu ko mën a defaral xam nga tey benn waaye daf ma ne euh, coalition ci local soxla wut dama ko tontu ma ne ko coalition ci local soxla nañ ko li tax ñu soxla ko mooy tey yow da nga dëkk Mbàkke am fa militant ma dëkk Mbàkke am fa wala nga dëkk Touba am fa militant waa léegi ñun ñaar bu ñu waxtaanul ba juboo suñu militant yooyu est-ce que dinañ xaj-xaj loo tey bu ma amee kuy présenté wu yow nga am kuy présenté ñu bokk Mbàkke hmm. bu ñu àndu liggéey kooku du la bàyyi nga jàll ma ni du la bàyyi nga jàll dañuy xëccoo te ñun ñaar ñëpp opposition lañ hmm. kon loolooyu indi nit ñi war a def coalition mais pas coalition séparée le jour qu'on va faire ce genre de ce genre de coalition là ah là Macky va ñu bouffer tout cru réew euh, Rewmi FM ngeen di déglu seen émission pencum réew mi ñu invité euh, Ndeye Sow la mu bokk ci coalition na mm-hmm. mooy présidente euh, mouvement liggéey Sénégal ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy mbënn mi nga doon expliqué sànq. Mm-hmm. mbënn mi gis nañ ne état bu Sénégal 2012 ba léegi def nañ si plus de 500 milliards. Mm-hmm. waaye ba léegi inondation ma ngi am yow lan nga jàpp ne moom mooy moo mooy problème bi ak lan mooy solution yi. maa ngi gis ne que depuis def nañ huit plans OPSEC. huit plan obsèque boo ko defee cim réew def naa solution war naa am euh, solution bi nag du ŋàcc meeg bu tawee ñu ŋàcc. loolu du pompage yooyu du pour solution xam nga pour solution bi lan la canalisation loolu mooy solution bi. Mhm. canalisation. Mhm. loolu mooy solution bi def ay canalisation xëy na lépp mënta dab daj mais am na côté boo xam ne boo ko fa commencé. nga defar canalisation xa milliards yooyu ñu ci mbënd mi ñu koy def boobu ba tey bu ñu jëloon beneen méthode ba tey parce que bu nekkee yow lii may def chaque jour <laughs> du am du am du am résultat mais naa changé méthode boobu. wala ña fa dëkk ma yëkkati leen benn waaye nee na ma du du nguur bi nit ñi fay dëkk la mais ka fay dëkk état moo ko autorisé. société bay autorisé moo ko autorisé ne ko fii man nga fee tabax dëkkal. te ñu suuf sa ba xam dafay dafay est-ce que SRA kese la. Mm-hmm. ma foo ne xaw ma kay duñ ñoom ñoo lay signal ne la jox la autorisation pour nga tabax te pourtant peut-être xam nañ ne kii fii muy tabax fii ndox la mhm. mais dañ koy bàyyi mu tabax kon bu du état bi kan la bu du état bi kan la moo fa bàyyi nit ki tabax léegi nag am na loo xam ne xëy na metti na dina metti ci état mais boo xoolee li ngay dégg ci milliards milliards def nañ ko ci ngàcc nge déjà kay ngàcc di nga ko fay pompe ya di nga ko jënd waa xaalis boobu yëpp doo ko dajale nga jéem xool parce que lii dafa yàgg depuis depuis après les indépendances ba tey dëkk bi nii la mel ba pare bu ñuy tabax duñ ne ah balaa balaa nit bi di samp fii nañ ci def ay canalisation ba pare problème mu canalisation kese la du leneen parce que ndox mee du dem mais si man li ma gis ni c'est inadmissible ay nit yi fanaan ci ndox sa lal bi di tëmm am na ci koo xam ne ma ngay fay ca biir ndox ma mais mais mais ba kañ responsabilité état la mais bu baax même tey man nday saw boo nekkee damay ñëw di tabax xëy na fi ma jënd nii man xaw ma ne fii day taa mais ña ña yor affaire suuf ña yor yëfi terrain bu ñu xoolee xam nañ ne fii de ñu ne ah soxna si fii kat jënd nga ko wala may nañ la ko mais c'est pas de câble bu keroogee sax bu ma tabaxee ci kaw la ngeen ma wax ba tey sax mu nekk responsabilité état parce que tey bu nekkee leer na la fii baaxul man waroo maa bàyyi ma tabax. Mhm. <laughs> foofu côté boobu moom ci état rek la du keneen. depuis après les indépendances ba tey muy ci euh, Abdou Diouf Wade ba ci Macky sàll c'est toujours sa problème là et on fait des millions dedans ci li ñu wax on fait des milliards dedans et jamais de solution. d'accord mais nañu seet beneen solution kon. ñu wax ci euh, njëg yi nga xamante ni tey euh, nee nañu njëg yi dafa yokk produit yu baree bare tamit dafa cher jamono ji yow lan nga jàpp ne moo waral njëg yooyu yokk. mooy yow man dama ko man de bari ki dem damaa yónnee xorom man du ma jënd saako xorom parce que unku yeeg li ci mag ñi di wax. ma yónnee xorom bi fukki dërëm je pense la lay jar xale bi ñëw ñu jox ko 100 francs indiwul weccet ma ne ko yow ana weccet bi mu ne ma noo borom boutique ma ne ko delluwaatal mu delluwaat ma woo sama kii bi ma ne yow lu tax lii mu ne euh, dafa yokk 100 francs mais fukki dërëm boo yokk nga teg ñaar dërëm nga toj ñetti dërëm nga teg ñeenti dërëm nga teg juróom waaye fukk ba fukk muy ñaar fukk duubal duubal bi ba pare damay laaj ne ana ministre du commerce ana ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem xool par exemple man ba ñu ma ba ma yokk mais téléphone bi ba ma koy jënd boobu yokk amagut waa léegi man may jaay téléphone bi ci yokku gi laa koy jaay maanaam du ma du ma jeexal du ma xaw ma ba xam yaa ngi comprendre du ma jeexal sama stock bu ñu yokkee ma ànd ñoo ñu yokk borom boutique ba xamul bàkkaar bi ñun sénégalais bi lu ñu teg ñu tegoo au lieu ñu gedd au lieu ñu grève li ñu war a wax duñ ko wax ñu dem di jëndi ba pare ñu ne dégage et Auchan fu mu jëm bu dégagé nit ñi torox li léegi mais diwlin geeg ah. diwlin geeg suukar sa yëpp a yokk mais c'est anormal c'est catastrophique xawma ban raison moo tax ñu def ko mais c'est catastrophique yokk moom peut-être nga yokk juróom yokk fukki dërëm yokk cent franc ba pare nag dara manqué wut xam nga ba ànday baax yokk bu ma loolu ma jaaxal bu yokk dee am day fekk dara manqué <laughs> waaw waaye li ma jaaxal yokk te lii <laughs> am ak ñi am ba tey ñun ñii nag ñoo ci war a wax la ñu war a yuuxu duñ ko yuuxu la ñu war ta yuuxu la ñuy yuuxu. ñun Sénégal li ñu war a yuuxu duñ ko yuuxu. dafa état bi expliqué wuñu dara. état lu muy expliqué xam naa danaan comme que dëkk dañoo taaloon dëkk bi yàq lu bëri lu bëri yàqu ñoom it dañuy toog di seetaan croiser seeni loxo di def caay-caay waaye la war a jooy duñ ko jooy la war a yuuxu duñ ko yuuxu yu ñàkk fayda rek la ñuy yuuxu. lu ñàkk fayda rek la ñuy wax ah heure bi waroon na fekk waxuñ ma la kenn du taal dëkk ci loolu mais wane ne carrément man jar na ma bañ a jënd di jënd dundee cere ak meew. mais courant bi ndox mi tamit facture dégg naa dafa. ah waaw déggoo la comme que ñun dañuy teg rek ñu ne te dégg ñun ñu teg lu ñu teg rek ñu ne dégg lu ñu teg rek ñu ne dégg <laughs> dégg dinañu wan yoon. da nga jàpp ne daal euh, ñun lu ñu teg ñu tegoo ko moo waral lii lépp. looloo am. man su ma duggee léegi muy man muy sama morom su ma doon bëgg charger sama gaz léegi fekk ñu teg ci ñaar téeméer dama ne ah baax na naa ko jënd bu doon tubaab du def loolu de tubaab lu mu xamul xamu ko jaroon na koo dënne dëñe waaye duñ ko def loo bañ sa morom nangu loolooy Sénégal nag loo xeex rek sa morom euh, seddal seral ba mu sedd. d'accord ñu ko lekk ak naan lañ tal loolu lañu lay wax. d'accord jërëjëf jërëjëf euh, Ndeye Sow euh, Leila coalition jot na léegi nag ñu jeexal ci li nga xamante ni moom mooy jëm ci wàllum coronavirus ci Sénégal ak gestion bi ñu bari dañu koy ŋàññi yow lan moo ci sa xalaat. gestion bi moom dara baaxu ci man j'ai eu à voir le première vague bi am jot naa ci jël sama wàll mais ah, déjà waaw jot naa Covid mais buñ la woowee buñ la seetee c'est pour te dire que tu as le Covid doo gis docteur doo gis médecin doo gis kenn dañ lay woo rek ne la am nga Covid loolu rek rey na nit. ah duñ la indil garab. Euh, déedéet man gisuma garab man sama lépp maa ko jënd sama bopp. mais jox la ordonnance. man sama lépp waaw damay j'ai mon dama am sama docteur dama am sama docteur bu bopp dama ko gis wax ak moom après ñu ne déjà pour te dire que yóbbu nañ ma SAMU sab yi ñu testé ma ma lu du naa ma da nga am infection pulmonaire rek te da nga lekk da nga faible ma ñibbi sama kër imaginez est-ce que man wàllu ko borom ambulance ba kañ kañ lañ la wax da ngaa covid euh, man sama covid dama dama feebar pendant deux semaines euh, mais boobu testé nañ ma gisuñu dara ci man euh, mais néanmoins feebar bi mu ngi doon persister mënu ma woon def daa j'étais gravement malade quand même j'étais gravement malade mooy temps wu problème mu Adji Sarr Ousmane Sonko bi bi ma demaatee di def test bi ñu woo ma ne ma il faut nga ñëwaat def naa test bi mais dañ ma ne il faut mu ñëwaat parce que xamuñu ba xam damay soog a pare wala damay soog a commencé après lañ ma woo nag ne ma dama am Covid téléphone nii rek ah toog xëy teg sama ndékki ñu woo ma ne ma euh, oui madame Sow vous avez le Covid. tiitaange rek. en fait non man dama ko doon sóoraale parce que bu nekk Sénégal fii boo toppee dañ lay rey. mais avant ngay am Covid euh, dafa am Sénégal yoo xam ne gëmuñu Covid ba léegi nii. ba tey gëmuñu ko ku ko gëmul dafa dalu sa mbokk. mais gëm ko ku fi teew. aka am. rey na samay xarit bërki démb rek biñ ne su wala tam xarit rek rey na sama xarit bërki démb reyaat na sama maanaam dama ne jamono jii Dakar laa wax de Sénégal gii ñu nekk ku amul mbokk mu dee am nga xarit bu xam mbokkam bu dee wala ko Covid rey waaye nag am yoo xam ne Covid dañuy Covid nëbb ko am ñu Covid rey ñu koy ne waaye xanaa yow nit ñu siiw ñu sax Covid rey na leen ñu dégg ko man des fois damay dugg bërki démb dugg naa marché ti leen mais man dama jaaxle dafa mel ni Covid amu fi gisoo kenn ku takk masque waaw léegi état bi lu bu waxee lan moo tax Sénégal yi duñ ko faral di gëm. dama ne la ku gëmul état bi sa affaire la am nga droit ba a gëm état bi nekkal sa état sa biir kër nekkal sa président sa biir kër nekkal sa gouvernement sa biir kër xam nga lan mooy loolu aar sa bopp sàmm sa bopp bul déglu état yow defal yow li nga xam ne moo la engagé. waxuma la xam nga tey bu nekkoon Afrique kese la sax mën nga nekk di laam-laame mais loo xam ne c'est international maanaam diggante Europe Asie euh, Europe Amérique fépp la am kooku di nga ko gëm di ko bañ a gëm inde te saa yoo xëyee waxuma la ku amul télé yaa ngi déglu sama yaay nee na ku rajo yee ku la sa nday yeeru yeewul sa baay yeewu la rajo yeeg télé yaa ngi yeete ku gëmul ne Covid amul sa affaire la. d'accord waaye jamono ji benn xol neexut ndax ku ci nekk rek am nga ko deele koo deele sa biir kër wala sa xarit deele wala sa xaritu xarit deele te Covid a ko rey. d'accord jërëjëf euh, Ndeye Sow Leila ñu ngi lay sant la gestion dara baaxu ci gestion moom xaalis bi war nañoo wax fu mu dugg. parce que dégg naa waaye ñi ngi à ñun soxlawuñu à peu dañoo bëgg ñu ne ñu fii ak fii la dugg lii ak lii lañ ko defee lii ak lii lañ ko soxlawee. d'accord ñoo ngi lay euh, sant bu baax a baax euh, Ndeye Sow Leila di la gërëm euh, ci invitation bi. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier. jërëjëf merci jërëjëf. jërëjëf Ndeye Sow Leila mbokk yi moom mooy jiite mouvement liggéey Sénégal mu bokk ci coalition jot na a ngi doon déglu seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf.